wa kaana lii bil axiiri wa kaana lii wa karami mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi nuyu mboolem ñi fi teew noo ngi nuyu mboolem ñi fi teew di leen ziara ci weer wu tedd wi ci waxtu wu tedd wi di ndokkeel mboolem ñi jiite liggéey bi di si jiital ak Cheikh Mouhamadou Fadal ñoom Cheikh Abdoul Ahad doom yéen ñëpp rek su ko defee di nuyu bu baax a baax a baax soxna yi ndax tabaarakallaahu yëg nañ seen taxawaay seen taxawaay rafet na ñoo ngi nuyu suñu kilifa nga xam ne ñoo toog nii bàyyi seen yitte yëpp ngir rek liggéeyal sëriñ bi ndax it tabaarakallaahu lu ko ëpp doole ci jamono di séesu ko su ko defee ñu ndokkeel nag jàngkati xaside yi ndax xaside yi kat sëriñ bi ñett la fi bàyyi mooy xaside yi ak doomam yi ak jumaam yi doomam yi ci ko kon xasida yi ak jumaa te Cheikh Amadou daa wax ne man sëriñ bi sama karaama mooy sama xasida yi yonent bu ne yàlla da lay jox ci wax ngàndaay ñu ñu ko tuddee ay mu'jiza su dee wàllu yàlla jox ko ngàndaayal karaama kon sëriñ bi soo waxee boppam ne sama xasida mooy sama karaama kon sàmmal ko rek moo ci war xasida yi lañ war a jiital lu cee teg soog cee teg mu wax lu ne ca xasida yi nag ne xasoa xasi moom la waxee sama xasida yi sama karaama mu bundalaat boppam ne xasoa ili min mu'jizatil muntaqa salla alayhi bi salaamin muntaqa sama xasida yii ñu ne ah mu ne ca mu'jiza alayhi salaatu wa salaam la bokk kon xasida yi ci bagage yi lañ waaye na koo rafaatale Sëriñ Tuuba mu indi ñu ko muy suñu tool bopp ndax yàlla dafa wax alayhi salaatu salaam ci alquran ne ko wa maa kunta tatluu min qablihi min kitaabin wala taxuttuhu bi yamiinika ne ko nafi mu ne baa ah, mu ne ko mosoo jàng ak tuuti mu ne boo mu ne ko mosoo bind ci sa loxo bi alayhi salaatu salaam moo jàng ñëpp waaye mosut a jàng mu ne ko la bind boo doon bind ba bind aw turam sax moom alayhi salaatu salaam du ko xam kon alquran ñaari baat ñu wala di yëngu ni nga ñaari baat yooyu ne suñ tubaab jëfandu ko wane ne yéen ñi alayha day ba tàkk buurukuna suñ tubaab nee na ani saaru saam daa waroon a bind waaye kon loolee moo war na bind te bind ko daa mel ne na ko man fay sama ndey yor biir mu ne mu ne alayha war na ko no anda sa nawamɓe yiltidi ko duuɗe man musidɓe sene joɗuji ma ɓoola fayen bor booba kon gaside yo ɓama am doyla sama gaside di yëngal aras kon gaside yi moom kenn daa xamul tool surtout waa su demut ci tukki demut ci tukki demut ci demut jurbal luur ne bu xëyroo ba noppi dem bind bu jullee ñëw bind lii mu bind waru maanaam kéem tànn la lu yàlla wàcc ci kawam lu jox la ko moo ma soo bind yii ñu ne ah mu ne moo leen jaam yàlla yi soo bind yii ne ko kaw ñu ne ko ah mu ne tawarrudi kullal mazaaya jamaa su nekk ci biir ñu ne ah mu ne lépp lu baax amee na ko kon sëriñ mu am kenn xamuñu doon ndax waxoon na ko Ah, raddani allahu alladi qad baata min alxuur ñu ne ko waaw mu ne wa misaali baata kon suñ tubaa amul morom suñ tubaa ko lépp loo am ko raddani allahu alladi qad baata min alxuur lépp lu baaxoon te nit mos koo am yàlla delloo fi ne ko ñu ne ko waaw mu ne wa misaali baata man ahmadu aw ma morom kon loolu dégg naa nit te loo ko waaye loolu suñ tubaa moo ko yëngoo woon ko waaye dafa mel ni assurement Fall la boo xam ne na fàttaati tuuti ci suñ tubaa ak ndaw waaye loolu luy te bu am solo ndax suñu xoolee ak Cheikh Amadou Bamba waxtaanee dundam bi mooy waxtaanee ndaw ak suñu Tuubaa ndax moom damay wax ne bu xoolee dundu jub bi borom xam-xam yi dañ koo séddale ci ñeenti xaaj bu nit gënee jamono ba baa am 15 mooy xaaj bu njëkk ba bu nit amee 15 ans ba am 40 ans mooy ñaareelu xaaj ba. ñetteelu xaaj bi mooy suñu amee 40 ans ba am 50 ans amee 50 ans ba foog dundam ñam mooy ñeenteelu xaaj bi kon ñeenti xaaj yooyu la nit di weesu ca dundam ñeenti xaaj yooyu nag maam benn xaaj boo ne moom la yàlla soxla ci nit ñi seytaane soxla ko adduna soxla ko bànneex soxla ko ñoom ñeenti ñëpp benn xaaj ba ñu tukkee mooy ban mooy suñu xasee am fukki at ak ba baa muy am ñeent fukki at ndax solo waaye suñu xoolee alayhi salaatu salaam dafa لقد بعثني الله بالحنفية السمحة فحارب الشباب وحارب الشيوخ علي Sarr Sarr nee na yàlla daf maa yónni ci ñun ci sëpp waaye bu ñëwee li dalal sama xel mooy ndaw ñi dañ maa dar mag ñi tontu ma lépp lu ñuy gis nit yëkkati ko ndaw ñi nangu ko mag ñi bañ ko jàppale na daan dox lépp lu ñuy yëkkati gis na ndaw ñi war nañ ko gannaaw jàppale ne projet boobu day naxtaay kon Ali Sarr Sarr nee na bi ma yàlla yónnee ndaw ñi dar ma ci laa xam ne li ñu doon dana dem. moo xam ne yàlla mës na yónni benn yónni bu dul ne illaa shaaban laa lay doon maa baasa allahu nabiyan illaa shaaban wala uutiya al ilma aaliman illaa wa huwa shaab kon ndaw mooy ñëpp soxla yàlla moom la soxla bu ñu xoolee mboolem yonent yi bu leen yàlla di yónni ay ndaw lañu bu ko yëg sidna Ibrahima yàllaa ko natt gi wa laqad aataynaa Ibrahima rushdahu min qablu wa kunnaa bihi aliim كيف قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظالمين قالوا أجبنا بالحق وأمرتنا الله عجل قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك الشاهد وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزابا إلا كبيرا لهم لعله إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا تسأله إن كان يدخل إلى آخره. قد بنقول عن إبراهيم عليه السلام li ko yàlla diwlu a daf ne Ibrahima ba ma ko jox ak njub di ko jox ak baax damaa bàyyi ba mu yegg ci mooy alatu sabab mooy bi nekk ndaw ndax yàlla xam na ne projet bi mu a andil àdduna kenn mënu ko gàddu ndaw ndax mag léeg-léeg day bëri lu muy tënkale bëri nag lu lebal àdduna am looy bàyyi xel mais ndaw fit ndaw ko moom posture bu ndaw ko moom ak sawar ndaw ko moom jot ndaw ko moom moo tax kum ma suñu yëngu kum ma suñu yëngu am ndaw ngay doon yàlla ne Ibrahima bu ma ko yëngu ci pénc bi lépp jëm ci ñu yàqu xëram rek lañ waxtaane kenn kuñ tukki sax da ngay yett sa xëramu mburu yóbbaale am naa ña nga ñu sant soo demee ba ñu dem ah yàlla yow kat baax nga waaye bàyyi ma baax benn mbagg mi xëylu boo demoon jàng rek ah yàlla amal na sa dem tànk bi Ibrahima ne leen gis ngeen lii ngeen nekk am ngeen ay point yàlla doo xam ne soo xiifee da man ma ñam ci balaa jeex Ibrahima ne leen yàlla daf maa yëm ci yéen may ndaw li ma leen di ëllëg nag mooy ngeen bàyyi seen xëy yu ngeen di jaamu te jaam yàlla ci jënd bàyyam daal ñett ay xarit di ko jox muy dugg ci dëkk bi ko am dina waaye su dee bu jaay danaan waaw kaay leen ma jaay leen yàlla waaye yàlla di leen jaay nag mënu ci yéen dara su ngeen tukki li ngeen ko laaj xamu ko su ngeen amee soxla mënu ci yéen dara wax a wax ma ne ah yow de doo gaaw a sottal ndax boo dee jaay naan li ngay jaay baaxul bu jënd ba lor la doo gaaw a jaay waaye Ibrahima yàlla nee na dina ko yëngee ki ñu wut ak gars yi mooy dañ ne kii daf ñuy fontoo léegi li ñu wut mooy Ibrahima dafa bàyyi bañ dem ci seen feet ba mu doxee leen gannaaw dem ci léegi bañ dem ci xéwlu xeer yu ndaw yëpp mu góor ngeen bañ daanu mu jël jaasi ba yëpp ca xeer bu mag ba bañ ñee na ah waaw hee waa suñu yàlla yi koo def a mais ah sami'na fatan déggoon nañ benn ndaw jeune mu ne yuqaalu Ibrahima mu naan lii daal bis bu ñu juree ba mu jekk ko baax ñoom lii la andi leen ko waaye bañ ko indee fi mu ba lépp lu nga fii te kaw daanu ci kaw ñoo dem koy sànni kon gis nga ne fi mu toll loolu ak posture bi ak ca waxtu boobu ndaw ko am waaye suñ ko xoolee ci yonent yàlla Yuusuf yàlla daf ko nattoon daf ne wala xara wala maa balagha ashuddahu aataynaahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi al-muhsinin wa raawadathu allati huwa fi baytihaa an nafsihi wa ghallaqat al-abwaab wa qaalat hiya laka qaala ma'aadha Allah innahu rabbiya ahsana maswaaya innahu laa yuflihu adh-dhaalimiin wa laqad hammat bihi wa hamma bihaa lawlaa an ra'aa burhaana rabbihi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عباد المعصين وسرق الباب وقدت قميصه من جبل والقى يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذابا قال هي راودتني عن نفسها وشهد شاهد من اهلها بين هي اذا يا مفهوم تك ان الجبل سنه صعبه هي يا رب منك كثير جات في المول Jadi bi di di ko toppatoo bool ba soxnaam ah xam nga rek fii nag yàlla ci bëgg misaal ndaw moo mën a dimb bànneex maanaam tey jii wii la adduna mën jox bànneex nga gis lu am solo nekk sa kanam doo xam jigéen la wala alal la wala daraja wala leneen mais yàlla bëgg ko nga not sa Yusuf ba muy ndaw la ko ko wala def ba ko soxna si Bouta ne Ibrahima dama laa bëgg damaa bëgg mu jéem nga wax ne mukk ci àdduna ndaw laa kon war naa mën a xeex ak sama bakkan bi man lii nga bëgg te yàlla bëgg du ma bañ ko kon lépp lu yàlla bëgg bu ko ndaw bëggee war na koo mën a am waaye lu yàlla bañ bu taxawee ci kaw ndaw kanam ndaw ndaw war na koo mën a bañ. Ah, Yuusuf ne ndaw si xam naa ne am nga daraja am nga tur am nga taas sa borom kër moo moom réew mi yëpp waaye lii nga may woo xam naa ne bu ma ko nangoo dinaa am xaalis dina am daraja dina am tur waye du ko nam na ndax ñu xamne ndaw mo moo mën a nam di nga ñu ko mujjee mooy dañ ko ci ca kasawa kon ndaw ñu loolu waaye su ko xoolee am na ñeen ñu euh euh tuddee bo am na ñeen ñu tuddee asxaabu kër alxuraan nekk na ko أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا يقولون إذ أوى الفتية من الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فجرة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها إلى آخره asaabu kër bi ay ndaw lañ comme ni ñuy takkatoo rek système boo xew seen biir ñu ne na dañ mag ñu ne du dañ ah buur ba ne léegi dama léegi daal li muy tëral mooy képp ku àndul ci li may ànd dama lay rey xale yi génn dem si roq ba rek li ñuy wax daal ne lii buur bi nam comme yàlla nam mu ko ñun duñ ci ànd bàyyi leen seen jërë nekk seen bakkan pour ñun dañ leen di bàyyi ànd ak yàlla. ah buur boobu leen waxtaan bi ñu ñëwee li ma wax léegi ne fit ndaw ko mën a am pëstéef ndaw koy am ak cawarte ndaw koy am nangoo jaay sa bakkan ci li neex yàlla it ndaw ko mën ah waxtaan ak buur buur bi ne leen damaa bëgg daa ngeen xam ne li ma bëgg mooy am ñu ne ko ñun de yow doo suñu buur ñun daal rabbu naa rabbu samaawaati wal ard yàlla lu dul asamaan kenn mës a dégg ku ne dañ koy réparé wala kon ngeen moo yàq wala nangam. moo mën a ne waaye suuf si ba ko yàlla nalee ba léegi kenn mësatu ñu laa ah, yàlla na ko may kon sàngam fan yi da koy defar mooy ñu ne leen buubu ñu yaakaar ñu ne leen ñun daal yàlla lañ yaakaar ah par dañ génnee ñu complot dem dugg ci am xóot xóot bi borom xam-xam ne leen ba ndaw ya ngeen dugg fa yàlla daf leen baaw roof jóge ci ginnaaw ñett ci li ngay at ndaw yi nelaw nañ ko wax nañu sax bi yàlla doole ñu yeewu yàlla ne la bi ñu tuddee li ma njëkk a dindi ci mooy danaa dindi seen seen ndax ñaari li yàq neew yi nopp moo gën a gaaw ñaari kuy nelaw sax boo bëggee yow nit day coow wala day yëngu wala nangam lu ci li yéen ci ay nelaw mooy ay noppam yàlla nee na ma ropp seen ma ropp seen jéggi yi ñu am fa ñetti milliards ñu yewoon yaa ñu def xiif de am nañ bi ñaari fan fekk yàlla nee na ñetti téeméeri at ndaw yi bi ñu jëlee seen bi ñu yoroon daal ni ah kon nag léegi nañ yor nañ yéen a yéen a yónni bu dem ci dëkk ba jëf ngay xewlu bu demee rek nga xool ñam yu sell ndax comme lu nattal yàlla moo tax ñu ñëw fi bu ñëwee na jëm yu sell bu ñu demee mu jox ko borom bitig ba borom bitig ba xool ko nag eh yow li nga yor ba xaalis du yëngu doon fekk wax dëgg yàlla xaalis boo xam ne ñetti téeméer at am na ko war naa xëy fekk na boobu système bi changé bañ am ba mu jublu bañ bitee ñu xool ko na ko yor daal li nga yor moom du am xaalis bu leen waaye bu leen ma foog doon man ba ci dem balaa fi jógee ñu ñu di jënd ñu naan ma nangam nangam par coow la dem a dem a dem ba yegg ca buur ba ko buur bi yëgee ne ah waaw kay yàgg naa ñaan yàlla ne ko histoire boobu ñu dégg ci suñu maam mooy ay ndaw yu laxasoon dem làqatu bi ngir bëgg nangu yàlla juróom waxoon naa yàlla na ma ko may mu feeñee si man par gis ngeen ko gis nga ko foofu ni mu demee kon foofu ngi saa fi ne ay ndaw rek ñoo mën a takk seen mujj ba taxaw te li yàlla bëgg dina am comme ni ngeen koy defee waaye nag da ngeen ànd ak sëriñ bi ñu taxawal yàlla bëgg ndax bi lépp mooy yàlla bëgg dana am waaye suñ ko xoolee ci yu bare bare histoire nekk na ko waaye même alayhi salaatu wa salaam ci sunna bi na ci ne lim bëggul moom ndaw ñi ñoo ko mën a jaaxal am ndax suñu xoolee alayhi salaam am na ndaw ñu doon wax Mus'ab bu Umayr di ko alayhi salaatu wa salaam di samp mu nekk ambassade ca Madinatu Munawwara 30 ans képp la am yaakaar naa ne fii boo ko xooloon ñu am 30 ans laaj leen loo réalisé lu sëgul mënuñ laa wax dara kon foofu wax dañ koy jàngee wane ne bu xas am 15 ans. war ngaa tàmbali nag di marqué sa empreinte ci pénc mi waaye soo amee 15 ans jàppal sa bàyyi daa war a yor rek wala jëfoo la duul xamoo li la tax a jóg kon alayhi salaam yebal Moussa bu Muhammad mu dem Madina boobu Madina lëpp na lool ndax nit ñi jubóowul xeex yebal na aw su na nga fa xasee na nga fee du laale te doon ay jiw yu mag alayhi salaam yebal Moussa bu Muhammad buñ demee lëkkale fa waxtaan ak ñoom ba wuti ñoom ñëpp ñu bokk appareil ñu tëraloo. ñu tukkee ñu jëfandoo ñu jugee ndox kon ndaw la woon Alioune Sarr Sarr yoroo ci ab dëkk bu fekk jubóo bu fexe rek jubóo kon ku am temps temps te wóoroo ma ne li tuuti am réew soxla sa mission mooy lan. waaye bu ñu xoolee Oussama ibn Zayd ibn Haarisa la biñ ko Alioune Sarr Sarr di jiitaloo xare ba waroon a attaqué di euh, capital bu Italie mooy Rome bu ko Alioune Sarr Sarr jéem a ko boobu 17 la mu war a jiite xare boo xam ne mag saaba yëpp nga fa boobu Aboubacar nga fa. Omar a nga fa Abi Ubayda ibn Jarrah euh, Saad ibn Abi Waqas Qatada ibn Nu'man ñoom ñëpp ñi am ay 50 ans ñi am 40 ans alayhi salaatu salaam jël xam ne 17 ans rek la am mu war koo mu mu jiite jaxaay boobu am na ñoo xam ne sax loolu jubluwul ñun ba mu doon di wax ba wax ji yegg ci alayhi salaatu salaam moo woon ñëpp ci jàkka ya ñun tamit ndax nee nañ dégg naa ne décision ma jël am nañu ci àndul waaye kii maa ko jiital ne ko nag na dox ànd ak ndigal yàlla lu nekk yàlla fekk ko kon ñu ba baa ngay am 40 ans loolu la ñuy jàppale doo ko am kon loolu ñun daaw dañoo tuddee lu baax a baax waaye Ali ibn Abi Talib bi yéen a yëpp commencé na alayhi salaatu wa daa bëgg a yàq suñu système yi. nañ ko attaqué xeexal moom ba daje te daaroon na loo dépassé bi ñoom bu yaatu booba daal ni lii daal jiir bu ne ci Makka dañuy waxtaan ak yow xool ku fa gën a nekk maanaam jeune boo fa gën a dëgër gën faa ëpp fit ëpp koo fit ñu ñu ngeexal ko lan bëgg. ñoom ñëpp nag ñu dajee ci kër Alioune Sarr Sam dóor ngóor ko ay jaas yi nga xam ne waa projet yi dañu mujj rek laaj ñu fay leen waaye du mën a xeexal jullit biñ dajee foofu ba jël décision ci ne famille bu ne dañ koy jël ndaw la ko gën a sawar ëpp ko doole te ëpp ko fit ñoom ñëpp biñ dajee Alioune Sarr Sam def na Ali ibn Abi Talib mu ne ko ah mu ne ko ndaw nga amul doon tànta waaye fi ma waroon a fanaan ba noonu fekk na fa damay tukki man damay dem Madina waaye yow kaay nga fanaan kon ndaw yi am tànta daanaka mën nañu wax comme boo jël ko waa Màkka yëpp Aliou Sow daal ne Aliou law nga waaye li ma bëgg law ko man kon kaay nga wut ma sama law bii man may génn dem Aliou dem tudd te Aliou Sow sax ba tudd jël mbàjj ma Aliou Sow sax sàngoo ko nga xam ne ndaw ñi dañ koy siiw dana jàpp ne nag yow tey kana Aliou Sow taal moo fa nekk kon law bu ñëwul ay engagement kon xamu ko ko taal ak ñu bare bari moo tax Aliou Sow sax doon dégg ndaw yi am na genn waay ñëwoon Aliou Sow sax bu ko dégg suñu tubaab ay ko. bi nga waxee nag waaw tey ñu wax xam san ku bëri la xam sin كما به امر خير الانسان عليه افضل الصلاه والسلام في اله وصحبه الغر الكرام اول الشباب قبل الهرم ومثل السحاب قبل الثالث هو الغناء قبل الفقر ثم الفراغ قبل الشغل خامس هو الحياه قبل الموت فسارع عن فسارع الخير قبل الموت علي السلام عن النووي ما ngi يقول في koy ko ci jiw yi balaa yéen mu ne ko bu ci njëkk mooy boo nekkee ndaw na nga profité balaa màggatee ñëw boo nekkee loo mën a def bul waaj bul tayal bul ragal bul def dara gën engagé ak sababu boo nekkee ndaw na nga profité balaa màggee ñëw ñaare ba mooy asxaabu soo wér na nga profité balaa wér ngay ñëw ñetteel ba mooy boo amee alal wala am loo mën a defee lu baax na nga def soo amee jot nan la profité balaa ñàkk a jotee ñëw soo ne duuru nan la profité balaa jëlee ñëw moo tax am saw saam doon wax ne ñaar yi dañ ñu bari mooy jamono ndaw ak jamono yu jeex nit dana nekk ndaw ba am ndawam jeex soo ko laajee looy def du la mën a am jot ba jamono dab ko njaboot gi ñëw àdduna xat ci moom te boo ko laajee ba ngay am jot lan dara la ko ndaw kon am saw saam ñaar yi